li si yéene kaay yi kuy nelaw na nga yeewu de ndax tey la bésu dëgg ci diggante Ousmane Sonko ak Mame Mbaye Niang gannaaw coowal Prodac bi amoon seen diggante tey la ñuy xam fi wenentu di mujjee ki gëtam ci kanam attekaay yi ci senegal yéene kaay bi naan njiital Pastef bii di Ousmane Sonko fa doon amal démb ab di woo fans yi ak partisans yi ngir ñu ñëw dooleel ko tanaan lawoon la dë du tey de dinaa wuyu ji ci kanamu ak attekaay yi libération naan moom Ousmane Sonko de fa doon profito démb di dankaafu magistrat yëpp ci Sénégal le témoin naan man de témoin laa fi nekkee tey jii de lépp dina leer ndax Ousmane Sonko de ne dina andi bépp tuuma bi nga xam ne teg na ko ci ndoddal Mame Mbaye Niang libération naan Ousmane Sonko de gëm-gëm la àndal dëgg ndax mi ngi naan Mame Mbaye Niang preuve yëpp lay andi maa ngeeg moom laas naan mbata ku nekk ci signature lamb Mame Mbaye Niang ca wet ga ma nga naan ko luy waay di jaay tey daal dina lamb su dee li nga ma wax am na dinaa tekki sama ndombal tànk te dugg ci kaso gi yéenekaay bi naan usman Sonko de ci kaw magistrat yi ak président Macky Sall la nekkoon mi ngi naan lii yépp ay pexe la ngir duma bokk ci élection présidentielle 2024 waaye na ngeen xam ne lépp lu mu leen jaral rek jaral na ma lu ko ëpp seeni pexe du antu dem leen seeti leneen moom njiital Pastef bi ci biir yéenekaay bi mi ngi naan sama baat ni poto ndax bépp doomu Sénégal bu dugal loxoom ci samay mbir bés dina dikk nga ànd ci ay leeral benn par benn vox populi na Ousmane Sonko de fa yàqu lu xame ki di président Macky Sall ak doyen des juges Omar xam Diallo ba wen bi ci dal dee ci kanamu taskatu xibaar yi Ousmane Sonko ci biir l'info ba tey mi ngi naan président Macky Sall am na ñaari mandat waaye xanaa nit du doyal takkal nag say dëbës nga abal ñu du yow yaa ñuy tànnal kan moo war a nekk président ci atum vingt 2024 direct news naan Ousmane Sonko dee su muccee ci coowal ma Mbaye Niang lii ma xam ne mbër dëgg la yéen kaay bi naan est-ce que dina génn ci coow li en tout daal policiers yi ak takk der takku neen ba dëgër ngir la amoon càmbaake ak ndakaaru capitale du Sénégal ñu bañ ko fee doggaliwaat les écoles l'observateur las le témoin ñëpp a xëy ci mbiru Ousmane Sonko ak Mame Mbaye Niang critique yéen kay naan Bamba faal sax critiqué na ko naan lu amoon ca Mbàkke du am fii ci ndakaaru fa ñu takku ba dëgër ngir jàmmaarloo ak ñoom duñ leen may dara te dara du tàkk Pape Malick Ndoye ministre de la jeunesse ne gis nga Ousmane Sonko lu muy jaay rek dinañ ko jënd te bu jaree sax ñu joxe suñu bakkan dinañ ko def déggal ma loolu rek libération naan Assane Mbacké mu ñu tegoon loxo manifestation agression ya amoon ca Mbàkke ñoom ñëpp ña nga ca biir kosaga te loo ci xamul nag benn juge mooy déglu juróom-ñaar fukki nit ubbi l'observateur mi ngi naan mburu mi dee fu ne lay xoyom xoyomee ci Sénégal tax na ñi di waa na Baye ni ki ëllëg ci aljuma ji la ñuy tëcc kaamil yi ñu doon amaloon maître coranique bi di Mambay Thiam ak lan mi ngi naan jàmm daal la ñu bëgg te lu dul jàmm jàmm ko gën yéene kaay bi naan fa ñu nekk ci coowal Prodac waaye kii di Ababacar Sall ngi amal ay tukki nemmeekoom ngir waajal élection présidentielle 2020 24 waxtu wii ma nga ca Tambacounda moom xalifa Babacar Sall fa bëgg a jël distance ci digganteem ak usmaan Sonko te bëgg-bëgg a mooy boole njabootu socialiste yëpp bés bi la jour naan tey jii tolloo ko ñaar fukki at ak juróom-ñeent gannaaw bi ñu faatee juróom-benn policier tolloo woon ak fukki fan ak juróom-benn ci weeru février ci atum 1994 nekk bés bi nga xam ne bu ñëwee rek xool yëpp yëngoo Le Soleil naan réew mi de li mu nekk métti na ndax feebaru cancer bi nga xam ne fa rafetee tout tànk yi téeméer boo benn tout tànk nga ca biir ci diggante juróom téeméer ak junni ak ñaar téeméeri kaa ci at bu yàlla sàkk loolee tax na ñu ngi sàkk ci nguur gi ngir mu jox tout tànk yi seen àq ak seen yelleef ngir faj leen te duñu fay dërëm tribune yéen kay naan dossier kenn dooy dee jeex na ndax kenn dooy faatu na demee méttit ak naqar dëgg ndax fa demoon ca ministre bu yor spoox sport ngir sàkk fa ab ndimbal waaye fa ñu ko dàq ñu tekki ay fan yu néew mu far faatu moom Yankoba Diattara dee ba mu demee jaala ji jox na ko benn million ci suñu koppar ak ak digge yu bëri lii de mooy médecin après la mort source aanaan 2007 ba junni yàlla tey jii kenn dooy di leen topp ñu bañ kaa jox ay raayaam yéene kaay bi naan kay ma nettali la xew ca Sacré kër benn agresseur moo doon agressé benn xale bu jigéen waaye ci ay pexe jigéen xale bu jigéen ba fexe na ba nangu paaka ba ca moom dal di ko jam ba laataa ñu koy yóbbu kër docteur mu far fa jaaree ñàkk bakkanam ah lii de la wax naan dëkkëb dooree lu ci mënta am daal yal nañu yàlla defal jàmm